أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم اللعين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين أجمعين وسلم تسليما كثيرا mbokk yi ñu ngi leen nuyu baax di leen ziyaara ñu ngi leen di baalu àq di leen baal di ñaan borom bi subhaanahu wa taala mboo leen jéggal ñu ngi nuyu ñuy déglu ko seetaan ci gox yu fasantiku yi di nuyu kilifa diine yeeg kilifa aada yi di leen ñaanal yàlla di leen ziyaara di ñaanal mboolem ñi nga xamante ni ñoo nekk ci xarala yi fa tabaarakallaahu di leen ñaanal yàlla mu yokk leen ci zahir yokk leen ci baatin fépp nekk nit nekk ci wàllu xat-xat ci wàllu jafe-jafe rek yàlla teggil ko ko defal ko jàppandal ak tey si rek na jaax bu ko defee ah ñu sofaat ca fañ daanele woon ci suñu émission bee jàll eh, war tey jokkaat dars bi waaw dañuy jokkaat dars bi ñoo ngi woon ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam eh, wala sax ñoo ngi daanele woon ci hadis bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ni am na aw ñoñ woo xamante ni bu dikkee ca dégg ab kawsara war cee naan malaayika yi dañ leen di dàq ne leen yéen doo leen naan ci kawsara loolu yàlla nañ ci yàlla musal kon foofu lañ daanele woon suñu suñu émission ba la jàll eh, fa tabaarakallaahu bu ko defee ah ñu tey war a tàmbalee rek ci يونس بن صلى الله عليه وسلم موعظه بوبو مو ديفون قال من ان العرباد بن يس بن ساريه قال صحابه من وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد صلاه الغداء موعظه بليغه زرفت منها العيون ووجلت منها القلوب انت صلى الله عليه وسلم بيس بيس تخاونا واري جاجي واري واخ واخ جو داو يارام واخ جو جو جو جو راغلو واخ جو تريست fa tabaarakallaa ba yenn ci saxaaba yi seen rongoñ tuuru nee na xol yi tooy nañu fàttalikuwaat yàlla mu ne inna haadi mawisatu muwaddiin ba koy rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam waxe nee na mawisa boobu dafa mel ni tàggatoo la ci saxaaba yi ñu ne ko yaa rasulallahi fa maada taahadu ilayna yaa rasulallahi ana loo ñuy bàyyee yonente salaa sallam yow te sa waxtaan bii mel na ni dafa am loy fa tabaarakallaahu man dafa mel da ngay tagato xam nga yunus sallallahu alayhi wasallam wax nañu iza jaa nasrullah wal fathu wa raayta nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fa sabbix bi rabbika wastaghfir innaka kaana tawwaaba wax nañ ko ba a ba sar wi wacce yenn ci sahaba yi dañu joy wax nañ ni Seydina umar la dafa joy joyuk waxna ni li dafa mel ne sallallahu alayhi wasallam sallam nañ ci tàgge parce que bu ñu la nee mbir yi daal bu démé ba lépp mat na nga tok jël sa kurus sàbbaal sa borom alors moy mission bi jeex sa mission bu jeexee nak moy sa bu dik da ngay dem kon mom dégg na ci liñ wax at tafsirul ishari al ma'nawi dégg na ci kani yonent sallallahu alayhi wasallam mission yegg na terme wala sax jege sina na fa tabaarakallah am nañu sahaba yi ñu déggé ci ni sar woowu dañ ci taggé yonent sallallahu alayhi wasallam loolu amal wufudi bo gisé ñëpp bëbb jëm ci lislaam ñi lànkoon nangu rek xamal ni fa tabaarakallaahu lii mat mat na mbir nag bu matee wàññi ko mbir bu màggee ba yegg ci mat soit mu stagné foofu mbaa mu wàcc mais pour muy dem ca kaw day jafe moo tax yàlla ba mu ne al yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu aleykum ni'amati wa raditu lakum al islaama diina waaw ca la fa tabaarakallaahu defee signature am ba def tàmpam def kachem ba fa tabaarakallaahu moo tax beneen diine dootul wàcc gannaaw lislaam moo tax loolu mbokk yi lu mat a euh, bàyyi xel la loolu tax mu ne yonte yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu ne li ma leen di bàyyee di leen ko dénk mooy usikum bi taqwallahi maa ngi leen di euh, bàyyiloo xel li ñuy wax ragal yàlla waaw ragal yàlla ragal yàlla nag maanaam du waxi kese euh, waaye jëf la parce que nit maanaam nit ci ni ko yàlla bindee mu ngi ci diggante xaraka ak sakina li ëpp ci li muy def jëf la wax jëf la xool jëf la tànk jëf la juróom-ñaari cër yi benn bu ci nekk nga ragaloo ko yàlla làmmiñ da nga koy ragaloo yàlla bët da koy ragalloo yàlla loxo danga koy ragaloo tànk da nga koy ragalloo ba ci sa pay da koy ragaloo yàlla nan nga koy ragaloo yàlla mooy nga def ko fa war a def bañ ko def fa nga ko warta def bu dee làmmiñ na nga wax ci la nga ca war a def bañ cee wax maanaam nga wax ci la nga ca war a wax bañ cee wax li nga ca warta wax parce que yooyu yëpp ay jëf la jëf nag dafa am lu nday joo rek lu càmmooñ yow nag yàlla jox la xel moo xamante ni ca ngay de ca nga cay maanaam ca xel ma ngay defee lu nday joore waaye ca xel ma it ngay defee lu lu lu càmmoñe moo tax yàlla wax ci alquran mu ne fa alhamaha fujuraha wa taqwa nee na doomu aadama ni ñu ko bindee moo ko mbir moo xamante ni mën na ko xamloo ni lii baax na ak bon na xam nga lu baax ak lu bon moom des fois sax nit ne na eh, seen téere yi da ngeen fàtt nit ñi lu baax ak lu bon moom ñëpp a ko xam ni ko Sénégalais di waxee waaw jëlul yàlla nee na bii fàtt nit ñi oustaz dañoo bëri wax parce que lu baax ak lu bon ñëpp a ko xam loolu des fois nga dégg ko waaye bu baax ak lu bon bu ko ñëpp xamee woon noonu ko yàlla du yónni kenn te et puis juif yi loolu lañ doon wax naan yàlla yónniwul kenn bu leen ñu fàtt waaw yàlla ni leen ci alquran waaw léegi comme que yéen nangu ngeen yonent yàlla Moussa yonente la kon kay bu leen wax yàlla yónniwul kenn waaye loolu koo dégg mu koy wax gis nga ku ñàkk fayda ku ñàkk jom ku wégul diineem moo lay wax ni la fa tabaarakallaahu xel doy na ci xam lépp xel bu doy ci xam lépp lan la nit ñi di jànge nit doo xëy rek doon ab mathématicien doo xëy doon ab mécanicien doo xëy doon benn euh, fa tabaarakallaahu du noonu mbir yi da ngay jàng jaar fi nga war a jaar di màgg ba màggaale ko ba xëy ñu ne la fa tabaarakallah lii ijaasaal nañ la ci am nga ci diplôme sàngam war nga caa wax war nga caa def war nga caa dindi waaye doo xëy rek nit lu mu nàmpul mënu koo gàll loolu nañ ci bàyyi xel nit li mu nàmput mënu koo gàll moo tax mu ne sallallahu alayhi wa sallam mu ne uusikum bi taqwallaahi ragal yàlla ragal yàlla nag bu ñu ko waxee mooy moytandiku tere ya jëfee ndigal ya parce que boo nekkul ci tere ya boo ne boo moytandikoo euh, tere ya rek yaa ngi ci ndigal ya kon gis nga moo loolu lañu wax ragal yàlla euh, beneen bi it mu ne wa sam'i wa taa'ati maa ngi leen di bàyyiloo xel as sam'i ngeen dégg ndigal waaye wa ati ngeen topp ndigal it boo amee kilifa nga xëy ñu ne gouverneur nee na président nee nga xey ñu ne la euh, préfet nee nga xey ñu ne la xalifa bi nee nga xey ñu ne la bàyyi nee nga xey ñu ne la ki jité sapeur pompier nee nga xey ñu ne la météo nee nga xey ñu ne la euh, fa tabarakallah euh, ki nga xamantene mo yor mo moo de grève bi ci walu syndicat yi nee na ah, ce sont des autorités ñi la ñuy wax ahlul hal wal aqd mën na nek ci walu diiné mën na nek ci walu aada mën a nekk ci fànn bu ne lenn lu ne ña cay imaam ña cay imaam xam nam ca tëddeeg nam ca demeek ñooñu bu ñu waxee dañ leen war a déglu parce que foofu lañu féete foofu lañu leen féetale loolu lu am solo la parce que loolu mooy indi harmonie sociale loolu mooy tax fa tabaarakal pëccëxoo du am beneen bi it loolu parce que ñooñu lañu wóolu teg leen ca kon ñooñu bu ñu waxee seen kàddu du bokk ak man mi nga xamante ni fa tabaarakallaa kon loolu mbokk yi mata bàyyi xel la loolu tamit sallallahu alayhi wasallam doon wax nit ñi ni leen usikum bi taqwa taqwallahi wa sam'i wa taati waaye wa in abdun habashiyun donte ni ki leen di jiite benn jaam bu jóge Éthiopie la xam nga dañ ku ñuul xam nga jaam bu nekk Éthiopie ku ñuul la c'est un noir un noir c'est un noir c'est un black ni ko gars yi di waxee kon nit ku ñuul maanaam Euh, euh, ñoom dañ ko jàppe woon ni maanaam du nit à part entière wala sax nit la waaye yàlla ko bind ngir mu servir der bu weex wala sax nit la waaye nit la moo xamante ni ak waya di moo nekk ci moom nit la waaye moo tax hadis bi wax ci seen langage ñoom ni leen donte ni nit ku ñuul ki ngeen di xeeb moo leen jiite nangu leen parce que nangu gi mooy waral fitna du am ki yàlla jiital du baraako ba maa la nangu leen waaye boo leen lànkee ki yàlla jiital boo leen lànkee rek problème day am loolu nag moom neex naa vérifier ñooñ Irak ba ñu beddee seen président ba lu mu ca lu ca teg Saddam bañ ko reyee fitna ca tegu ba ñu daanalee nguuru taliban ya fitna ca tegu ba ñu daanale nguuru xadafi fitnaa ca tegu ba ñu daanale nguuru basalaar asad fitnaa ca tegu waaw doomu aadama yow bu dee da ngaa jóg ti yéen a da ngaa ñëw di déjjati président war faa tegaat beneen président na fekk li ngay indi président ba la muy def la mu doon def ca réew ma na fekk nga indi lu ko gën mais yow nga ñëw xoolal dëkk bu mel ni Libi nga faat fa ay junni junni junni doomu aadama kenn amatul liggéey ba pare nga woote ab loi boo xamante ni danaan képp ko waxoon ni nguuru xadaaf yi gën a neex ñu emprisonné la gis nga voilà moo tax mbir yi il faut ñu teg ko ci teguwaay yi ki yàlla jiital ñu jiital ko mandaam jeex moom it mu abale waaye ci ñàkk a abale ki war a abale mandat jeex ñuy def tappale foofu dinañ fi teg baaraam parce que hadis bii sax kobe saale na ñun ñun daf ñoo kobe saale léegi léeg nga dégg benn waaye bu lay wax ni la constitution bi dafa wax ni manda nangam nangam ta'wil ta'wil xam nga ta'wil bo demee ci alquran dañ lay wax ni li ñuy wax ta'wil ta'wil moy nga ni no c'est que c'est-à-dire no buñ ko défé ni manda bi fi la tambalé nangam nangam manam détail bo bo ci duggé loolu la wax teewil loolu la wax mutashabih alquran mu ne ñi nga xamé manam zayr wa amma alladina fi qulubihim zaygun fa yattabiuna ma tashaabah nee na gis nga ñi nga xamante ni ak njàng ak ndëng dafa nekk ci seen xel ils sont mal intentionnés nee foo leen fekk dañaa non c'est que c'est-à-dire bu ñu defee nii bu ñu defee nii bu ñu nangam nangamee bu ñu moo tax loolu dañ ko war a moytu nit ku honnête dafa war a moytu loolu c'est très important c'est très important nit ku honnête dafa war a moytu loolu waaw que nag day jur fitna loolu mooy jur fitna c'est que c'est-à-dire fitna lay jur te wax nañu fitna mu ngi nelaw yàlla rëbb na ko ko yee bokk na ci lii yee fitna maanaam mandat nga am sa deux mandat ñu ne la demal nga ne de moom réew yu ko def yëpp fitna dafa am fitna dafa am réew yi ko yi yi ko def yëpp fitna dafa am moo tax nag la fitnatan laa tusibanna alladina zalamu minkum xassa mooy tëndiku leen fitna yoo xamante ni maanaam mën na bañ a yem ci yéen man ngeen ko sos tàmbali ko waaye doo leen xam fu muy yem doo leen xam fu muy yem moo tax fitna dañ ko war a moytu waaw fut na dañ ko war a moytu te it nag euh, gis nga bu yàlla defee ñu réussir ñii ñaan ñaan ñi war a wax wax ñi war a jëf jëf ba ki falu falu ci jàmm folleeku ci jàmm dem ci jàmm ki war a faluwaat falu ci jàmm gouverner ci jàmm folle comme jot mu folleku ci jàmm lu am solo ngi noonu mbokk yi continuité day tax ba Sénégal moom kenn du ñëwati laalaat mandat waaye gis nga bu ñu defee nii taqale daal kii tappale kolewaat ay morceau te wiil keneen bu ñëwee day defaat référendum kiyaat moom it waxaat lu ni mel eh, aw laa defoon na ko fi Babou Ndiaye bu ko defaatee moom it keneen ki ñëwaat noonu lay defaat moo doon sunna boo xam day continuer waaw man mii sax bu ma fàllu woon noonu laa def damay indiwaar fii laalaat fii def référendum bu ñu waxee man legal na parce que référendum laa jaar gars yi changé def nii nii wala assemblée nationale laa jaar mais loolu éthique ak moralu nit waru ko koo may te it réew mi daf ñoo war a gënal suñ bopp lu am solo la. parce que sa doom la sama doom sa jarbaat sama jarbaat bu méttee ci ñëpp la bu amee fitna ci ñëpp la ñu bañ a jël jëmmi doomi aadama yi def leen ci suñuy xol baaxul nañ jël réew mi def ko ci suñu xol. ña fi nekkoon démb anañu dem nañu seen yoon réew mi fi des kon nañu des ak réew mi waaw loolu fa tabaarakallaahu lu am solo la lu am solo la kon moo tax yonent sallallaahu alayhi wa sallam mu ne dee leen nangu ak ku leen mën a jiite donte ni benn jaam bu nekk Éthiopie maanaam nit ku ñuul nangu leen mu ne fa innahu lii mbir tey mbir man ya'ish minkum képp ku dund ci yéen yaraa dina gis ixtilaafan kathiran dana gis ay wuute yu bari conflit yu bari mbir yu bari fitna yu bari waaye wa iyaakum maa ngi di leen moytandiku wa muhdasaati umuuri man yonent yàlla muhammadin sallallahu alayhi wa sallam maa ngi leen di moytandikuloo ci sama gannaaw ci wàllu diine maa ngi leen moytandikuloo muhdasaatul umuuri yu yees yi du ci wàllu diine sax lépp lu yees gis nga léegi doomi aadama dafa li ñuy wax dafa dénaturer natiir bi mu mujj doon fitna ci moom lekk lu sell la noyyi lu sell la naan lu sell la mooy waral dund gu sell la mais nit ñi lekkatuñ lu sell naanatuñ lu sell noyyeetuñ lu sell xool pollution bi man njëkk may ñëw ndakaaru jóge ca àll bu sori ba ba guddi yi mu njëkk a def ndakaaru bu 9 jotee rek damay gëmmentu mel ni ku ku ku naan euh, dorog waaye ndekete pollution ndakaaru moo ma koy def waaye xaw ma ko ma ni waaw ñooñ ndakaaru nan la ñu mën a dundee ci biir ndakaaru ci pollution bii waaye ba ma demee bari tànku ndakaaru ba virus bi duggal ma dugg ma léegi yëgatuma ni maanaam loole ma doon dikkal ci bu ma ñëwee ndakaaru dikkalatuma loolu nag mooy nekk di la rey di la feebarloo ndànk-ndànk moo tax loolu moo yu baaxal lekk lu sell noyyi lu sell naan lu sell mooy joxe dund bu sell loolu tax mu ne eh, mooy tundiku leen yu yees yi yu yees yi yu yees yi mu ne fa innaha gis nga yu yees yi دلالة فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين bu dee ci wàllu diine li ma doon wax léegi ci wàllu aada la waaye ci wàllu lekk ak naan ak dund pollution ak yu mel noonu waaye bu dee ci wàllu diine la yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ni mooy tandi ko leen lu yees li waaye boo leen gisee lu yees ci wàllu diine moo xam doxalin la moo xam tëralin la ak lu mu ci mënta doon rek fa alaykum bi sunnati ni ngeen xool lan moo ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaye wa sunnati xulafaa ir rachidin na ngeen xool lan moo ci sunnay xulafaa ir rachidin mooy eh, saxaaba yi nga xamante ni mooy Abu Bakar Umar Ousmane Ali ak ñi gannaawu seen bootu ci seen gannaaw ñi nga xamante ni almahdi yii na ak aji defar lañu waaye abdu na ngeen ŋànk ci seen seel yi alayha ca sunna boobu bin nawaa jizi loolu lañu tudd sallallahu alayhi wa sallam maanaam li ñuy wax diine diine jullit ñoo koy sàmm ñoo koy watt li ñuy wax sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam diine moo koy sàmm diine moo koy watt waaye nag fitnay iyaakum wa muhdasaatul umuuri fa innaha dalaala fitna ju ci nekk am na fitna ju ci nekk am na ñoo xamante ni dañoo gis ni kullu muhdasatin bidaa wa kullu dalaa wa kullu bidatin dalaa wa kullu dalaal fi naar ñoom loolu lañ wax day ni bidaa mujmal la du mu fassal kon képp ku naan bidaa bu baax ak bidaa bu nangam ak bidaa bu nangam dañ naan loolu amul ci bidaa moom mujmal la rek du mu fassal kon bidaa boo gis rek dalaal la dalaal joo gis waaw misaal boo gàtt laa la jox maanaam boo defee lu xaraam est-ce que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def na lu xaraam déedéet kon boo defee lu xaraam kon li nga def bidaa la waaye du biddaa rek yem ci biddaa la ba pare xaraam la waaw léegi ñaata nit ñooy def ñooy def xaraam ñaata nit ñooy def xaraam waxuma biddaa de xaraam xaraam ñaata nit ñoo koy def kon boo bëggee mbooleem ñiy def lu bon leen ñu def xaraam nga bëgg leen yóbbu safara sëñ bi kon koy aljanna kenn du tàbbi aljanna moo tax loolu nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax mën ñu wax kullu bid'a dalaala wa kullu dalaala e, fi loolu defe naa joxe woon nañ ci dars di wax kullu dafa am kulliyaat dafa am ni al kullu wal kulliyatu waxoon ci ay kullu yu bari ci alquran yoo xam bokkuñu tey masalan bu ma la nee bu ma la nit ñëppay faatu baatu ñëpp am bàyyi ma kenn loolu kullu la bu ma la nee bakkan yëppay faatu kon bakkan rek laa wax fi ma nee nit ñëppay faatu kon mala yi ay bakkan lañ yor nit ñi ay bakkan lañ yor mais génn naa ci mala yi te moonte ñëpp baatam ñëpp laa utilisé ba ma nee bakkan yëpp dugal naa ci mala yi waaye bu ma nee kullu man alayha faan ñu nekk ci kaw suuf yëpp dañuy faatu gis nga génn naa ci ñu nekk kaw asamaan kullu man alayha waaye bu ma nee bu ma nee ah, kullu shay'in haalikun kullu shay'in bépp mbindeef bu yàlla bind rek haalikum kon gars yi kon kullu yi yemuñu dayoo kullu gi nga xamante ni dama doomu aadama yëpp ak fi ma nee bakkan yëpp ak fi ma nee mboole mbindeef yi kon gis nga kullu yi rek yemuñu moo tax nag loolu li tax ma di ko wax mooy jàngkat yi laay waxal jàngkat yi nañu bàyyi xel lan mooy kullu ak lan mooy kulliyatu ak kullu yi nan lañu mel soit seeni contexte ak yu ni mel loolu fa tabaarakallaahu jàngkat yi moo tax may wax loolu moo tax nañ bàyyi xel ci loolu ñu bañ a jël rek ni kullu bidaatin dalaala wa kullu dalaala fi naar ñu jël nit ñëpp tàbbalin safara te or que aadama yi mënuñu ñàkk mooy yàlla doomi aadama yi mënuñoo ñàkk moo yàlla bu dee nag ku def bidaa nga dim safara kon ku ma yàlla moom xaw ma foo jëm moo tax loolu mbokk nañ ci bàyyi xel لطف صلى الله عليه وسلم من نجن غوي كسم سنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وين نجن تي مدقر من عن أبي رافع عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال وخنا لا ألفي أن أحدكم متكئا على عريكته يأتيه الأمر من عمري مما عمرت به أو نهيت عنه فيقول لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه نانا أمنا أو نتوى خمنتين دنا نيو سما غناو nit kookee dañ ko naan yàlla de neena na yonent sallallahu alayhi wasallam neena nee na mu ne la fan la ko wax wala ko nangam dafa haram ba ci kat cigarette da nga naan cigarette dafa haram mu ne la fan la ko yàlla wax ci alxuraan loolu fànninu fànninu féttéerlu la fànninu féttéerlu la parce que mboolem li haram waaw yow mi wax lolou du yaa ngi jàpp yaa julli janaba yaa aj makka mais formule bi ngay ajee màkka ak ni nga koy defee yàlla waxu ci alxuraan te moom te yaa ngi koy def li ngay ara li ngay bàyyi ci julli yépp yaa ngi koy def te alxuraan tudd ko te moom te yaa ngi koy def kon yaa ngi wax yaa ngi weddi sa bopp ci biir wax te xamoo yaa ngi weddi sa bopp loolu la mbokk borom xam di wax jahlul mu rakkab moo tax baat yooyu baatu féttéerlu la wax ni lu dikkut ci alxuraan rek rek loolu amul walla wérul loolu fa tabaarakallaa da ngay wax kay lepp lu juuyoog alquran lepp lo xamanteni ni dafa opposé wu ak alquran opposé wu ak sunna nabi sallallahu alayhi wasallam da nga nan lolu du du lu dagan wala sax nga ni loolu mamnu waye do wax rek ni bu ko yalla wax ko ci alquran rek nanga ben nar nenañu dafa dem ci rewu Angleterre eh, ñu fekk ko fa muy nan li ñi wax whisky ñu japp ko ni ko waaw señ bi yow li ngay nan sangara la mu ne dedet ñu sangara whisky parce que yàlla xamru la wax innama al xamru wal maysiri sàngara la wax comme baatab xamru ak baatab whisky du benn gis nga parce que yàlla yàlla or que yàlla waxul whisky ci alquran waaye nag effet bi whisky di def effet bi pastis di def effet bi rosé di def effet bi biiñ xaw ma di def effet boobu bi sàngara biñ xam di def lépp sàngara la rek ña bokk même at waaye nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax toog di wax ni alquran waxu ko rek kon libre nga ci def ko loolu boo ko defee fa tabaarakallaahu eh, boo ko defee rek tey boo jëlee takk nit nga takk ab xale bu jigéen ba pare takk bàjje na wujje leen sunna da koy tere mais fan la ko alquran tere alquran tere bu ko fenn waaye nag yonent bi sallallahu alayhi nee na dañ maa jox alquran jox ma lu mel ni moom ma àndale kook moom ñaari di seen njariñ muy alquran ak sunna yonent bi sallallahu moo tax waxi yàlla dañ koy jëfe mais wax yonent bi sallallahu alayhi dañ koy jëfe kon mënuñu wax ne wax yàlla rek la jëfe bàyyi wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon amul mooy nga nangu yonent bi ci lim wax yàlla ne nga lànkal ci lim mani kon loolu mbokk yi eh, lu mat bàyyi xel la yonent bi wax na ci beneen hadis mu ne افترقت اليهود على إهدى أو سنتين وسبعين فرقة وستفترق النصارى على إهدى أو سنتين آه، وسبعين فرقة وتفرقت أمتي على ثلاث وسبعين فرقة في بنين رواية من سنتان وسبعون في النار سنتان وسبعون في النار وواحد في الجنة وهي الجماعة من أنت صلى الله عليه وسلم من ما نام جيفي دفنا نكرير يباري كريتشاني def nañ kuréel yu bari waaye yéen jullit ñi yéen da ngeen di séparé ci ay kuréel yu bare baree baree baree bare ba loolu day mujj doon fitna ci yéen waaye kuréel yi jullit ñi danañ dem ba ñaar fukki juróom-ñaar fukki pàcc ak ñaar nee na waaye juróom-ñaar fukki pàcc yeeg benn yépp safara lañ jëm ba mu des benn loolu xadis wax na loolu yeneen xadis it wax nañu leneen wax nañu ni deux tiers jullit ñi dinañ tàbbi aljanna directement deux tiers yi wala pas jullit ñi sax mooy xeetu yonent yàlla Muhammad deux tiers yi ñooy tàbbi aljanna waaye daal alquran li mu wax safara dana fees aljanna dana fees la am la anna jahannama min al jinnati wannaasi ajmaina mooy ñaari kër yëpp fa tabarakallahu dana fees loolu mu ne rawahu salaasa abu daawud tirmisi nettali nañ loolu mu ne ani nabi sallallahu alayhi wa sallam jëlee nañ ci nabi sallallahu alayhi wa sallam ba tey mu ne taraktu fiikum am rey ni maa ngi bàyyi ci yéen ñaari mbir lan tadillu ma tamassaktum bihima doo leen réer mukk sama ginnaaw foo fekk yéen a mooy ci ñaari mbir yooyu ñu ne ko waaw loolu mooy lan mu ne kitaabullahi alquran wa sunnati rasuli ak hadisu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na rawahu imam malik wax nañu it ci zeyd ibnu arqam jële na ci yonent bi sallallahu sallam mu ne inni taarikum fiikum ma in tamassaktum bi lan tadillu min baadi ahaduhuma aadam min al axar kitaabullahi muy tiirab yàlla حبل ممدود من السماء إلى الأرض أقلن من وإترتي أهل بيتي وإترتي أهل بيتي ينتهي على محمد صلى الله عليه وسلم من فوفي جلت نيجيتي في القرآن دي وحني لان لتي القرآن وخ لان لتي سنة ينتهي صلى الله عليه وسلم وخ لان لتي تيري وخ ديسان ما نعم بين مبك ma ne ko waaw li nga wax lii la ci téere wax mu ne non c'est que c'est-à-dire man ko léegi bàyyi ma indi téere bi ma liiral la nga dégg mu ne non jaru ko voilà foofu la jullit ñu toll ak sunna yonent bi sallallahu téere mooy yow li nga bëgg a dégg ak ni nga ko bëgg a déggee li nga soxlawoo téere moo tax loolu day màbbal diine mbokk yi diine du màbbee noonu mais nit ñi ñoo koy màbbal ci seen ak woyafal ci seen ak ñàkk a mooy téere seen ak ñàkk fonk téere il faut que ñu référé wu ci li nga xamé modi mbind mu sell mi il faut que ñu ñuy référé wu ci alquran yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sallam wax na it alquran lam ca tek moy ahlul bayt mu di njabootu yonent bi sallallahu alayhi wasallam dañuy wax ni mattafaqa bihi almuslimuna moy lan hadith bi gëna wér nga xam julit ñep dajana te ñaari bari woo ko nak rawati na ci ahlus sunna moy lan kitaabullahi wa sunnati rasuli rek ngay dégg mais bari woo dégg kitaabullahi wa itrati ahlu bayti ak sama njaboot ñooñ ahlul bayti doo ko bari di dégg waaye loolu nag politique la li tax mu mel noonu ca dawla abbasiya amawiya ñu nasaxal xadis boobu te moonte moo gën a wér xadisu kitaabullahi wa sunnati loolu borom xam-xam yu bari wax nañ ci loolu waa ahlul bayti ñii boo seetloo xam nga yontu yàlla muhammadin sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni ana madinatul ilmi wa aliyu baabuha man maay madinatul ilmi ali mooy baab waaye xoolal Seydina Ali li ko yàlla defal Seydina Ali hadis wax na ni man ak Seydina Ali ñaari leer lañ ci kanamu yàlla ñuy rogalaatoo di dikk ba ma ñëw ci abu abdul muttalibi ma xëy di xaatimul xaatimul xaatimul anbiyaay yàlla dajalewaat ñaari leer yi ñaari leer yi mooy Xuseyn ne Xasan Faadima ak Ali lañ dajalewaat mu jur Huseynu ak Xasan Huseynu ak Xasan boobu lii mooy Abdul Qadir Jeylaani lii mooy Ahmad Tijaani moo tax li kulli wirdin yuridul murida li hadratillahi waran yahida siwa un nintima ilal Jeylaan aw intima li Ahmad Tijaani Ahmad Tijaani moom it mu am wiraasay ana xaatimu lawliyaa yi kon xatimu ñaar la bi xaatimul ambiyaa yi benen bi xaatimul lawliyaa yi te yit nak awliya wallahi nangul ko ko kon lolu lu am solo la li ci tek moy ahlul bayt léegi nak bo sété ahmar bama bind na téré bi ñi wax huqal buka ala sadatin huqal buka awliya wallahi yim ci lim imaamu rafaa ñom ñoom jeylaaneeg ñi muy ñaan yàlla ne ko yàlla defal privilège buy faatu ñoñu téwé ak ak faatom moom yàlla na ko yàlla mu ngi def tawassul ci loolu di ñaan yàlla fépp yàlla ngay rocci sama bakkan rijaalul xamsi yii nga xaman ñoo taxaw taxaw ulul azmi yàlla nañ teewee sama faatu nga mën a barkeeloo ci ñoom boo xoolee li topp Ahmada Tijani ci taifam boobu li topp Abdul Qadir Jilani ci taifam boobu Ahmad al Badawi kon da ngay gis ni mbooleem awliyaullahi yi ci gën a bari ci njabootu Seydina Ali lañ bokk moo tax saxaaba yi ak nu ñu mën a toll ñëpp Seydina Ali moo leen ëpp may moo tax mbooleem confrères yi ngay dégg cosaan yëpp ci njabootu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu mooy tegtale ana madinatul ilmi wa aliyu baabuha moo loolu am solo la moo tax wa itrati ahlu bayti ahlul bayti lu am solo ci wàllu diine beneen xadis sax dafa wax ni amaanatul ardi ci li ñuy wax aqda bi nangam nangam li ñuy wax amaanatul ardi yàlla mu ngi ko def mu ngi ko teg ci nekkuk ahlul bayt yi comme ni mu jëlee istigfaar istigfaar salaatu ala nabi mu doon loo xamante ni bu ak moom yàlla fadna yàlla tukki na àddina waaye ahlul bayt it garanti boobu la ñu am ci kaw suuf moo tax loolu ahadis yi jàngale na ko mënoon nañ ci gën a yaatal nag ci ay ahadis ak texte mais wala kulli xaalin ñu doy loo rek xam ni daal ahlul bayti fa tabarakallahu liyuzhiba ankum rijsa ahlal bayti wa yudahirukum tadhira xoolal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci aaya bi wax taalaw nadwa abnaana wa abnaakum wa nisaana wa nisaakum wa anfusana wa anfusakum ci laaya jooju yonent yàlla muhammadin sallallahu alayhi wa sallam pour ñu seedal ko risaalaam gi dafa woo Seydina Ali Xasan ak Xuseyn ak Fatima sàng leen mbalaan ma yow yàlla ñii ñooy ahlul bayt ni leen nag na nga génn rijsa ci ñoom comme ni ko alquran waxee li yusba ankum rijsa ahlal bayti wa yutahhirukum tadhira kon ahlal bayti rôle bi ñu am ci ci islam ahlil bayti rawatina aqdaab yi awliya yi rawatina lawtaat yeeg lafraat yi li leen yàlla defal ak rôle bi ñuy joué ah fal mu dabbiraati amran fal mu dabbiraati amran waaw yàlla fa tabaarakallahu am na ñu koy doxal mission ci kaw suuf loolu nag ci mbokk yi bàyyi xel ñu ngi nuyu ñëpp nag di leen ziyaara aqulu qawli hada wa astaghfirullah likum lii wa lakum wa li saa'iril muslimin wa salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh